Euh, oustaz dafa am na ñuy tuddee la masturbation masturbation bu ñu waxee am na feebar la boo xamante ni bi day dal góor yu bëri mm-hmm. Euh, surtout ñi nga xamante ni bii amaguñ soxna comme ni nga ko waxee woon yonent bi sallallahu alayhi wasallam sax jàngale woon na ci benn xaris sànq yaa ngi koy tudd yaa maasara sabab man istata'a minkumul baa'ata falyatazawwaj euh, digle ci ni ku ko mënul nga woor mais ñu gis ni am na ñoo xam da leen ni dal lu bëri avant koor euh, aussi ci question bi dëkk dafa tënku ci lu bëri ki nga xamante ni bii dafa dafay dund aussi relation amoureuse mm. di provoquer ki nga xam moom la nekkal wala mu koy laal wala mu koy biisu yoo xamante ni bi yuy dépassé la yooyu yëpp da ko tënk loolu tamit lan moo ci taxawaayu lislaam euh, ci weeru koor gi bu dee masturbation bi nit ki fooye boppam ba nga xamante ni da caa jële bànneex euh, kooku ndax kooram day yàqu wala du yàqu laaj bi day soxla na yaatal gu yaatu lool ci sunu jamono ji nu toll waaye nag gannaaw laaj la ci benn waxtaan bu tënku mhm. nu tënk laaj bi waaye bu laaj yaatal la lool mhm, ndax li ci laxasoo bari bi ci njëkk mooy mm-hmm. al istimna mm-hmm. mooy masturbation loolu ko tubaab di wax defe naa mm-hmm. wolof di ko tuddee mballu mooy baatub wolof bi ci ngir mu leer mooy nit ki di fowee awraam ba am lu génn ci moom loolu dëgganut ci jullit muy ci bëccëgu koor wala mu bañ a nekk ci koor ki ko def ci koor nag ba loolu am na jàpp ne ak kooram yàqu na da koy fay waaye war naa tuub ci kanamu sunu borom tabaraka wa taala ndax dafa bokk ci yu xaraam yi ba ca des ci laaj bi yi ca nekk ba bari du dagan sax góor gi ci boppam di dugg ci relation boo xam ni loolu la koy jural maanaam dafa dëgganul cib jullit mu ni kat ah man de takk gu soxna waaye am naa ndaw soo xam ni waa bëgg naa koo takk muy saab coro fasanteeg moom couleur ngir takk ko léegoo-léeg ñu wootante ay téléphone wootante bu yàgg boo xam ni mhm. mën naa créer nit ki jot ci boppam mhm. loolu dëgganul ci jullit moom mhm. ndax dafa am kàddu yoo xam ni léegoo-léeg ñu wax ko ci relation yi fekk daa dëgganul ci relation bi waaye nag dafa daggan ci diggante borom kër ak soxnaam yenn kàddu yi yenn wax yenn jëf yi diggante borom kër ak soxna rek la daggan dëgganul ci ñaar ñi nga xam ni danoo fasante kóllëre ngir takkante ba loola de ca sosu waaye bu ca sosoo nag nan tuub delluwaat ci suñu borom nan jéggalu yàlla seen bàkkaar boobu yi nu def waaye bu dee koor la koor ga yàqu na bu dul koor am na nanu bàkkaar nanu ko tuub delluwaat ci suñu borom tabaraka wa taala wallahu alam wallahu alam waaw oustaz macha allah kii day laaj ma ni ndax jigéen may nañ ko ci bëccëgu weeru koor mu jël ay pilule loolu yaakaar naa sax ñoom euh, souvent ñoom ñoo koy utiliser suñ seen bopp pour pour pour pour euh, weeru koor gi bu jàllee ñuy ñuy ñuy kii pour pour fay ak genre yooyu noonu euh, ndax may nañ jigéen muy jël ay pilule yi nga xamante ne mooy seen xeet yooyu ñuy utiliser rek. maanaam jigéen ji nga xam ni koor daa ñëw. Mhm. ngir mu bañ a gis mbaax ci diirub weer wi. Mhm. jël ay per yoo xam ne da koy naan. Mhm. ngir mu bañ a gis mbaax diirub weer wi. waaw boobu laaj day. lislaam dana ci mën a tontu waaye da koy delloo docteur ya ba noppi dog caa tontu. léegi lu lu tax mu koy dala docteur ya day aju ci wér gi yaramuk doomu aadama gi su laajoon docteur moom soxna si ne ko ah per bi su ma ko naanee du ma gis mbaax diirub weer te bëgg naa koo jël diirub koor gi ngir du ma mën a fay bëgg ànd ak jullit ñépp ba koor gi jeex docteur ba xool ko di docteur bu gëm yàlla nag ni ko ah boo ko jëlee du la indil benn loraange ci sa wér gi yaram du la lor dara ci sa avenir amul benn problème waaw su boobaa dagan na mën na koo jël ngir ànd ak jullit ñi woor ngir bañ a fay waaye nag su ko docteur bi ne woon ah boo ko jëlee dana la lor ci sak wér yaram de dana la lor ci sa amuk doom de dana la lor nangam ak sàngam su boobaa lislaam danaan ko déedéet sun borom nee na wala tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin yàlla nee na bul dugal sa bopp ci lu lay alak bul dugal sa bopp ci lu lay lor da rafetal ndax yàlla bëgg na ñee rafetal kon danga koy bàyyi boo gisee mbaax bàyyi koor ga am nga ci dagan na ci yow bu jeexee nga fay loolu moo ci taxawaayu lislaam macha allah wallahu alam kii tamit day laaj xam naa question bi ñëwoon na fi ci beneen question mhm. mooy jigéen bi nga xam dafa gis mbaax ci bëccëgu weeru koor kooku ndax day dog wala day continuer koor gi waaw jigéen ji woor ba bëccëgu koor mhm. ak mbaax dikkal ko wala ak mat dikkal ko mu am doom deret ja ànd ak doom ja ñëwaale waaw kooku day day daal di dagg koor ga xam ni koor googa yàqu na bu wóoroon ba deux heures wala ba trois heures ak mbaax dikkal ko na xam ni kat googa koor yàqu na na arrêté kooram su koor ga jeexee boobu bës da koy fay ak yeneen bés ya nga xam ni mbaax ga am na ca ba keroog mu setee lu mu ko indil ci fan rek bu jeexee mu fay ko moo ki am doom nooyam moo ki nga xam ne sax daa wooroon ba bëccëg ak wopp dikkal ko wopp joo xam ne métti na métti waay boo xam ni fawu docteur yi defal ko loo xam ne day lekk mbaa mu naan su boobaa kooka it buñ ko ko defalee koor ga daa daal di yàqu bu ëllëgee mu fay ko su su koor ga jeexee tam wér wallahu aalam jazakumullah xeran léegi comme question yi yaakaar naa jeex na dañuy dem ci tafsir yi mhm. mooy euh, ayat yi nga xamante ni bi xam naa dañuy jël ñaari rek mhm, bi ci njëkk mooy bu ñu demee ci alquran yàlla suñ borom mu ngi wax ni laa taqnatu min rahmatillah mhm. inna allaha a zunuba jamia ñu gis ni aaya boobu ñu bëri dañ koy utiliser mais dëgg-dëgg dañoo bëggoon ñoom ku leen ko tafsiral bam normal wala ku leen ci mën a andil ay exemple yoo xamante ni bi yërmande yàlla chaque jour dina ñëw laa taqnatu min rahmatillah laaya la ju nekk ca suratu zumar boo ko jàlloon da nga ciy dégg suñu borom ni inna allaha yaxfiru dunuba jamian innahu huwa alxafuru rahim laa maanaam lii nga laaj ni ku ko doon bàyyi xel da nga ni yàlla ku bëri yërmande la yàlla fii dafa ni li tàmbali laay ji sax daf ni qul yaa ibadiya alladina asrafu ala anfusihim laa taqnatu min rahmatillah daf ne ko yow muhammad waxal sama jaam ñi nga xam ni moy nañu yàlla moya moya moya moya moya ba yàqu cig mooy yàlla def nañu bàkkaar def bàkkaar def bàkkaar ba yàqu cig def bàkkaar ne leen bu ñu ñàkk yaakaar mukk ci yërmande ci sunu borom ji tabaraka ndax yàlla moom mooy ki nga xam ne dana jéggale bakkaar yépp ndax suñu borom tabaraka wa taala mooy jéggal akon bi di yërëm akon bi foofa waxul yonent mi ni ko neel sama jaam ni yéen ñi def bàkkaar de daf ni yéen ñi mooy yàlla ba yàqu ba sànku qul yaa ibaadi alladina asrafu ala anfusihim mooy nañu yàlla ba sànku xool fii suñ borom ni ko utilisé mooy nañu yàlla ba mooy mooy mooy ba sànku hmm. ba foog ni ñoom c'est fini hmm. yàlla ne na ko wax leen bu ñàkk yaakaar nañ dellu si nañ ñëw nanu ñëw danaa leen baal danaa leen jéggal ndax man maay yàlla mi nga xam ne ku ma tooñ ma jéggal la moo mhm. tax boo continué woon laa ji def ni mhm. wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu ne leen nañu dellu ci yàlla mhm. nañu ñëw nañu tuub nañu jéggalu nañu dugg si waat suñ borom na ne danaa leen jël dana leen jëggal loolu mooy laay ji euh, Cheikh Amar kon léegoo nga dégg ku ne la waaw man dey li ma def yàlla xam ne ko tey dong sax tey dong sax am na mbokk mu ni ma man ndaw laa sama njuum te dafa bari lool ni ma li ma def ci bàkkaar ndax yàlla dina ma baal li ma def sax laa loolu sa wax ma ne ko li nga def bu ko wax waaye li nga def nu mën a toll ci bàkkaar sunu borom tabaaraka wa taala nee na boo ñëwee tuub danaa la jéggal ma ne ko yow nga yaakaar ne ban bàkkaar a gën a rëy ci àdduna mu ni ma bokkaale ne ko bokkaale gën a rëy mu tegu njaaloo mu tegu rey bàkkan du dëgg mënu ma oh, kay ma ne ko ñett yi nag suñu borom da ko boole ci jenn laaya yàlla def ni ñi nga xam ni kat defkati njaalo lañ waaye ñi nga xam ne ay bokkaalekati suñu borom lañ waaye ñi nga xam ne ay raykatu nit ko boole nee ñi ko def wa man yafal dalika yalqa athaaman ña ko def danañu am bàkkaar dégg nga yàlla mu ne yudaaf lahu al adabu alqiyamati wa yaxlud fihi muhaanan yàlla mu ne danaa leen fulandil seenug mbugal danaa leen mbugal mbugal mu metti fulandi ko ba mu bari ndax liñ dafa rëy waaye nag suñu borom mu baax mu mu ni illa man taaba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu lahu sayiatim xasanatin wa kaana allahu gafuran rahiman yàlla bi mu waxi li ba àggal mu ni ah ba mu des ñi tuub ba mu des ñi jéggalu ba mu des ñi daw utali sunu borom ñooñu danaa leen baal danaa leen jéggal waaye nag lu ñaaw lañ doon def démb njaalo yaag mooy yàlla yaag rey nit ñaag bokkaale ya danaa ko soppi mu nekk aw yiw ma def leen ko ci seen mbandum yiw loolu mooy yërmande sunu borom tabaraka wa taala ci gàttal loolu moo wundu laa taqnatu min rahmatillah macha allah looloo ko kon lii war nañ ci dégg lu bëri ci jilit ñi nga xamante ni bii sa moroomu jullit dalay tooñ mhm. nga bañ koo baal même tooñ nga lu mu rëy rëy rëy jàppal ni yàlla suñu borom moom ci boppam mooy bët bi gën a màgg di gis nit ñi li ñuy def lépp moom moo ne wa jaalna layla libaasan wa jaalna nahaara maasa bu ko neexoon sax di liñ ñi suñuy sutura ñun mais da gis nit du suturaal moroomu jullitam da ngay gis nit koo xam ne da lay tooñ nga ni doo ko baal parce que li la dafa rëy ak nit ku lu mu mën a def bu ñëwee ci yow defe naa ni la baal ma lépp loo jàppoon war nga koo bàyyi ndax yàlla suñ borom mi ngi nii kon bu demee bay baale bokkaale di baale njaalo di baale yeneen bàkkaar yu mag kon moom mooy ki nga xamante ni bi inna allaha ghafurur rahim ci loolu hmm. xéewal gu mag a mag daf ci nekk ci yow mi nu tooñ nga baale te yàlla tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam daf ni képp koo xam ne tooñ nañu la nga mën a fayu te ñépp xam nañ ni mën ngaa fayu waaye nag nga baale te yàlla tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ëllëg yowmal qiyaam su jaamu yàlla yépp taxawee nit ñépp taxaw yàlla suñu borom war a àtte day wax naan ana diw hmm. diw ma baale woon hmm. diw ne ko maa ngi hmm. yàlla sunu borom tabaraka wa di ko uurul ay nu yaa ngi xoola la ca neex nga jël ma neexale la ko ndax yaa daan baal ña la daan tooñ ci àdduna kon yow mi ñu tooñ nga baale te yàlla tax lii la sunu borom di fay ëllëg yowmal qiyaamati. macha allah kon ñuy baale bu baax parce que baale moom. Euh, l'islam daf ko kii lu bëri léegi dañuy dem ci deuxième aaya bi ma deuxième surat bi sax tafsir bi mooy qul yaa ayyuhal kaafiruun laa a'budu maa ta'buduun wala antum aabiduuna maa a'bud wala ana aabidum maa abadtum wala antum aabiduuna maa abud lakum diinukum waliya diin mu nekk saar boo xamante ni nag yaakaar naa képp koo xamante ni bii euh, mag nga mag yi liñ naan saaru mag yi la ñu bëri ñi wuñ ko daal parce que nee nañ dafa jafe mais saar bu gàtt la mais nit ñu bëri dañoo xamul dëgg dëgg dëgg saar lu ñu firi parce que da ngay gis ñoo xamante ni bi dañuy bàyyi saar bi yépp dem ci la abudu ma taabudun wala antum abiduna ma abud wala ana abidu ma abattum nit ñi aaye bu leen ci neex la ñuy jël ñu daal koy firi te xamuñu la jiitu aaya ba ak la ko mujj loolu aussi lan moo ci lan moo ci taxawaayu lislaam ci aaya bii nii taxawaayu lislaam mooy mhm. jullit ñi ñépp benn diina lañu am muy lislaam mhm. la war mooy ñu gëm ko te jëfee ndigal ya ca nekk wattandiku tere ya ca nekk léegoo nga wax ak ab jullit ba àggal bokk leen gis-gis ci tem sàngam mu ne la sëñ bi lakum diinakum waliya diin loolu valableul ci jullit ak moroom ja loolu ba ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam di wax moom jullit la muy wax ak yàlla di ay yéefar mu ni leen du ma nangu mukk ngeen jële ma ci gëm yàlla gii ma nekk comme yéen nanguwu leen a bàyyi seen diina waaye nag kon li fi des ba am mooy waaw des leen ci li ngeen gëm kon te ngeen bàyyi ma ma gëm saa yàlla ji ma gëm lislaam ji ànd ak saa saaba yi kon yow jullit bi du ñàkk nga réeroog sa mbokkum jullit ci benn gis-gis wala ci benn pas-pas waaye su boobaa bul ne ko jëlal sa diina ma jël sama diina diina lislaam dee su ko xaajoo yéen a ko bokk di benn diina ngeen gëm mhm. léegi-léeg mën nga ne kat ah man kuréel sàngam laa bokk kuréel sàngam laa bokk mhm. waaw la am solo mooy mhm. nu bokk gëm yàlla nu bokk ànd di jëfee ndigal yonente bi alayhi salaatu wasalaam lépp lu lislaam wax nu bokk ànd jëfee ko tem nag mën naa am juyoo am ci ak yu mel noonu léegi-léeg saxaaba yi daan juyoo ci ab tem nekk ca di ca wax di ca wax lu yàgg lool bañ jóg sax dem ba dunu juboo ci genn kàddu gi waaye ànd ak lool sunu borom tabaraka wa taala nee na dañ daan akolaatante di wanente ak mbëggeel wane ni benn diin la ñu gëm benn yàlla la ñu gëm muy allah benn yonent la ñu gëm muy rasulullahi mii dëgg la nag juyoo nañ ci ponk bi waaye lool du tax nag ñun ñëpp ci lislaam lañ bokk kon laay jooju valableul ci diggante jullit ak morom ja waaye kii jullit ak kadul jullit ca la am wallahu a'lam pare alxuraan sax mi ngi wax ni inna diina inda allahi al islam diine bi nga xamante ni moom la yàlla reconnaître mooy diine al islam mhm. yonent bi di waxaat ni laa tabaaxadu wala tadaabaru wa kunu ibadallahi kon mhm. matal na lépp mhm. léegi dañuy ci euh, mbir mu am solo xam naa day dugg ci koor gi muy euh, benn xadis boo xamante yonent bi moo ko jàngale mm-hmm. mais nit ñi dese nañ koo xam dëgg-dëgg muy valeuru xëdd maanaam yeewu fajar teel dem jàpp julli ñëw jël sa xëddukaay daal koy xëdd mm-hmm. ñu gis ni nit ñi léegi li ñuy def mooy dañuy mbëssal liñ ko olof di waxee mbëssal maanaam nit ki day reer ba pare bu reeree minuit une heure mu daal di lekkaat bu ko defee moom day burle julli fajar mën na koo sax def mais xëdd moom jaralu ko yàq ay nelaw nelawam loolu aussi lan moo ci taxawaayu lislaam xëdd day buñ ci waxee dana dana dana dana bégloo faaleen yu baree bari ak jaañeen yu bari ndax yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci boppam daa fonkoon xëdd ba taxoon mu wax benn xadis mu ni tasaxaru fa inna fi suxuuri barakatun nee na dee leen xëdd ndax xëdd kat barke ngi ci de mu waxaat ci beneen xadis mu ni laa yazaalu ummati bi xayrin maa ajjalu lfitra wa axaru suxuur nee na sama xeet wii daal doon dañ mokk di nekk ci jàmm ak ci yiw li feek ñu ngi teel a dog di yéex a xëdd kon kooku bëgg nañu xëdd wax na ni bu ngeen xamoon li ci xëdd doonte da ngay ni darngu di watatu ba ca ndaala guux fa benn guuxum ndox delluwaat kon da ngeen ko def kon xëdd yiwang ci barken ci yonente bi alayhi salatu wasalaam moo na ko xabaar waaye yow mi jóg fajar sax di xëdd da lay dimbale waale da lay dimbale waale nga mën a julli fajar waaye boo ne man duma xëdd ndax sama nelaw laay bañ a yàq continuer see nelaw mën ngaa biddanti doo julli fajar mën na laa yàqal yiw woo xam ni doo xam na muy toll waaye jóg waajal xëdd dana la dimbale ci bëccëgu koor gi nga am loo taxawoo ndax lekk it am na solo wax dëgg yàlla ndax mooy may jaam mu mën a taxaw ba am lu mu dëgërloo jaamu yàlla te dana la dimbale nga mën a julli waale fajar jóg teel a yeewu dem uti liggéey ak yu mel noonu da la ci dimbale waale kon xëdd bokk yi mhm. euh, def ko dey mhm. am na solo lool mhm. léegoo-léeg nga dégg ku ne la man xëdd daf may sonal waaye déedéet tënk ko rek tënk ko rek ci ne ko yonent bi waxee ni barke la jël barke ji te bañ jël coono bi waaye jël yiw weeg xéewal gi ci yonent bi wax te bañ a jël coono gi euh, loolu loolu moom moo nekk ci wàllum xëdd macha allah wallaahu aalam Sénégal moom baaxoo nañ sax léegi da ngay gis gars yi di yeete xëdd mm-hmm. Mm-hmm. jug leen xëdd donte ne am na ñoo xamante ne bi xamuñu valeur bi ñu ngi def benn mbir mais xamuñu ko mm-hmm. mais day jar ñu war leen ni yéen sunna la boo xamante ni même bu fekkee da ngay yeewu sax lekk benn tàndar ma naan ndox macha allah oustaz loolu moo fi rotoon ci ay question ci émission taxawaayu lislaam fii ci Dakar Buzz euh, lan ngay tàggatoo waaw li ñu tàggatoo mooy noo ngi dëkkmal koor gi noo ngi dëkkmal compétition bu mag maa ngi dénk saa bokk yi comme ni may dénk sama bopp bis bu jot mooy nu dugg ci koor gi ànd ci ragal yàlla waaye mooy nu góorgóorlu njuum te yin doon def ak njombe yeeg bàkkaar yaak wax yu ñaaw yaak yu bon ya nu fexe ni koy gaay di waxee bu mu topp ci koor gi te buñ demee ci koor gi gannaaw topput ñu nu bañ ko wooy waat muy dellu si waat nanu góorgóorlu daal dugg ci koor gi ak préparation bu mat sëkk ki nga xam ne ñëw na ci terrain bi entraîné ba kooku am na yaakaar ni mën naa fubal quatre-vingt-dix minutes te du am jafe-jafe waaye ki entraîné ci jaamu yàlla ànd ak ragal yàlla gu mat sëkk waajtaay bu mat kooku danañu am yaakaar ni dana mën a woor ca na ko sunu borom bi tabaraka wa taala bëggee euh, su noppee it dana ci man a defaroo loolu laay dénk saa bokk yi di ko dénk saa bopp waaye di dénk ba tey bokk yépp ne mhm. wax ju ñaaw baaxut Cheikh Amar wax ju ñaaw baaxut Cheikh Amar mhm. te noonu léegi sunu réew mi mhm. dafa bari ay ndaw yoo xam ne wax ju ñaaw rek la ñu yittewoo te day toroxal gor day yàq gor mën naa yàq lu baree baree baree bare loo xam ni foogunu ko mhm. gis nga sa portable bu ndaw bii mhm. nga jël muy la tuuti nga xam ne mën nga koo ngëb kenn du ko gis mhm. nga bind ci benn kàddu gu ñaaw wallahi mën naa yàq dundu doomu aadama maa ngi dénk saa bokk nu wattandiku lu ni mel waaye di ko dénk sama bopp gis nga yomb na lool nga dugg ci benn page bind fa benn fàttalik yàlla mu jariñ aw askan wu yaatu yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na jaamu yàlla bi mën naa wax benn kaddu du ci sax bàyyi xel te fekk na kàddu gi suñu borom gërëm na ko lool ba loola tax mu tabbi aljanna yal na yàlla boole ci ñooñu mbokk yi moom mooy leen tàggatoo di ñaan bii nga xam ni mooy dakaar Buzz yàlla sunu borom def ko mu dem ba nekk ay télé yu baree baree bare nit ñi ñëpp di ci jariñu Sénégal ba àdduna sépp di ci jariñu lépp ci lu baax ci njariñal diine l'islam ji macha allah ñoom seen euh, taxawaay rafet di ñaan yàlla mu defal nu jàmm amiin amiin ci àdduna ak ci àllaaxira defal ko mboolem jullit amiin amiin wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad mm-hmm. wa ala alihi wa sahbi ajmain mm-hmm. wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh